que dëkk bi dox il faut changer les mentalités mais pour nga teg mentalité yi bi ci jiitu misaal la njiit yuy joxe le bon exemple beneen bi ci topp seson sont des règles ay tëralin mais des règles qui s'imposent à tout le monde parce que loolu mooy règle avec des sanctions mais yu juste amul règle lu baadoole bi ak règle lu député bi règle pour ñëpp la ndax dëgg benn dëgg la te yàllaa ko moom sëñ Cheikh Fall Mbawoor nee na maslaa fu mu yàgg nee na dëgg jóg fa ndax fenn lañ fay sutural mu mel ne kon ñun ñëpp xam nañ ni pour mentalité yooyu changé bu yooyu dajee leen rekk ci des mooy njàng kon ah loolu yëpp boo ko xoolee ku ne da ci am wàll maanaam niveau national ñi ko jiite am nañ ci wàll niveau yi ci des am nañ ci wàll ba niveau bi gën a suufee am nañ ci wàll ñun nag dafa baax ñu leeral bi may wax ci kàllaama nasaraan am na yu ma jot leeral euh, tey communes yi nekk ci Thiès ñoo taxawal conseil de ville bu Thiès bu njëkk buñ daan tànn conseil de ville. dafay am ñaari liste daanaka liste boo xam ne ñooñu dañuy jóge ci communes yi ak benn liste proportionnelle boo xam ne ville rek la noonu la daan demee ba 2009 mais bii ñu génn daaw bi ñuy tànn conseil amul liste ville communes yi ñoo am liste bi ñu defee ba pare. commune bu nekk ca na mu toll ci population ñu ni nangamu conseiller lay yebal ci ville kon looloo waral ñuy wax les communes constitutives de la ville la ville boo demee ci article 167 bu code général des collectivités locales dañuy wax ne une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présente une homogénéité territoriale mu mel ne dañuy seet ay communes yoo xam ne dañoo nuroo ci ni ñu nekkee ñu leen di dajale di ci defar ay ville waaye ville mën naa am te demewul noonu ndax ville u Thiès jëluñu ab commune booleeg beneen booleeg beneen ñu taxawul ville dañoo jël ville bi tracé ci biir xaaj ko def ko ñetti commune ñi nekk tey te nekk ay maire parce que bu ñuy waxtaan toujours dañuy waxtaan ci dëkk suñu bëggee dëkk bi dox tey ñi nekk maire tey ci maire commune yëpp 2009 bi ñuy campagne ku ci nekk jël nga parole ne maire maire commune warul am ci Thiès ku ci nekk jël nga parole wax ne xeex Idrissa Seck moo tax ñu tasaare Thiès ay commune waaw mënoo ñëw wax loolu 2009. 2014 nga bëgg a bég ci li nga nekk maire commune ñépp xam nañ ne tey bu nguur décidé def fi ay commune ñun dañu respecté loi dañ koy jëfe te tey kon maire bu nekk ñu fal fal nañ la maire nga tant que loolu dañul waaye ñun li ñu war a jiital du rek texte bi dañu war a jiital esprit bi mooy askan wi lañu ñu war a liggéeyal kon su fekkee ne division bi daf ñu nar a indil ay gàllankoor ba tax yéene bi ñu am ci population yi duñ ko mën a jëfee ñun ñoo war a seet nu ñuy jariñoo de façon intelligente les textes ba xam nu ñuy nekkee nu ñuy vivre ensemble tey ñi nekk fii yépp xam nañu ne président de la république dafa santaane woon premier lundi de chaque mois comme altine bii di ñëw dañuy def cérémonie de levée des couleurs mais depuis que ma nekk maire mairie bi lundi bu jot day am levée des couleurs bokk na ci li ma ci jublu woon mooy suñ ko defee tey ville beneen yoon ñu dem ouest beneen yoon ñu dem est beneen yoon ñu dem noor te suñu defee levée des couleurs ba pare maire ville ak maire commune yi ak seen adjoint yi ñu dajee ñu waxtaanee problème mu dëkk bi muy semaine bu jot.

le lieu de l'intercommunalité dans la ville puisque communes yi ñoo daje foofu kon foofu ngay déparé pour mën a saafara les problèmes ndax tey buñ ne ville moo yore mutualisation mooy lu Ceesuwaa yépp bokk ville la ko yore tey dañoo def benn acte de dévolution boo xam ne gare routière dañ ko jox commune ouest ce n'est pas normal parce que gare routière waa Thiès yëpp a ko bokk kon jaxate bokk na ci li jur problème yi ngay wax lu mel noonu marché centrale waa Thiès yëpp a ko bokk commune noor waru koo yore bokk na ci lu jur problème mu jaxaaw yi ngeen di wax ndax leer na leen ne ginnaaw bi fi jëlee marché sam su maire commune ki euh, maire yi sa ki bu marché central nekkoon sama loxo problème boobu do ndax yaakaar naa ni jële fi marché Sam moo gënoon a jafe régler loolu kon tey bëri na loo xam ne dañuy toog di ma ko laaj te yorewuma ko tey ci tey tey ci tey laa la wax xaw ma nag ginnaaw suba ndax am na commission ad bu bees bu taxaw boo xam ne moo war a waxtaane waat yi nekk ci dëkk bi naka lañ koy séddalee tey may ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk responsable communes yi ñu ban a réagir comme na suñu yenn way jur ya doon réagir bi indépendance day am ndax tubaab yi biñ ñu bëggee noot mbokki kii yi nii bi ñu bëggee noot dañ doon def dañ doon def dañoo jël Afrique boole ko def Afrique occidentale française parce que dañu xam ne mbooloo mooy doole waaye ba ñu bëggee jox suñu indépendance ñoom dañu seetaan ñu tasaaroo ñu nangu ko nag suñu ay wayjur yaa ngi dégg moom ay wayjuram dajale ñun suñu ay wayjur ba nu waree jariñoo ñu tasaare ndax kenn ku ci nekk bëgg ngaa nekk président kenn ku ci nekk tu voulais avoir tes motards tes 21 coups de canon c'est pas possible c'est ce qui se passe dans les villes c'est ce qui se passe avec les communes et c'est doit cesser ñun tooguñu fii pour di raayante tooguñu fii pour di raggante dañu toog fii pour liggéeyal Thiès su ma juumee ñu ne ma dangaa juum ñu teg ma ci yoon su keneen juumee ñu ne ko dangaa juum ñu teg la ci yoon xuloo taxul dañu bëgg mu dox dañu bëgg ko ça marche ba may wax léegi di wax ci masla looloo tax ma wax ko masla fu mu yàgg dëggu jóg fa ndax fenn lañ fay sutura tey suñu dëkk dafa doon dëkk boo xam ne boo nee diw nàngam mu ne daf maa xas waaye bu doxul ñun ñëpp danañ ñu xas te dafa war a dox nag ñun waaw parce que bu nit ñi xamul ku ci nekk lan nga yor bu dara doxul comme nit ñi ñu ci bari maire ville lañu xam dañ naan waa Talla lu muy liggéey waaw adjoint maire yaa toog xam nañ li may fii laa toog ñu war a def reboisement jëmbat lu mat junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñetti garab te nee naa leen fii ndax li ñu yàq loolu garab yeeg ak gàncax geeg lu nu mel ci plateau beeg lu nu moo waral ndox mi di sonal ci biir dëkk bi ñu jóg tàmbalee loolu avant tubaab yi di nu jàppale ndax ndimbal na ca fekk si loxol borom mais benn ci meeru dëkk bi jël téléphone am woo délégué de quartier ne bu leen ci dem. man maa jël sama téléphone te ñoom ñi xam ne li may wax bind ko message ne ko taxawaay bi rafetul seetaatal sa taxawaay moom jël na kii bi won ko ñëpp moo tax ma naa leen ko parce que du secret mais parce que dañu war di waxante dëgg suñu bëggee mu dox xasuma ko de xasuma ko de dama ko yéene jàmm tey transport problème yi nga xam ne moom la am moom mi maraudage bi muy wax mais bu ñu jëlee bu ñu jëlee gare routière jox ko benn commune yeneen commune dañ naan ñun comme duñ ci am nañ defar suñ bos léegi bu ko defee nit ñi di wàcc foofu ak di fa yéeg bu ko defee ñoom ñi nga xam ne ñoo organiser transporteur te nekk gare routière bële ñu jàppee ko maraudage loolu day yàq dëkk bi loolu wax naa ko ca départ bi te kenn dégluwuma kon commission bi nga xam ne moom la préfet taxawalaat ndawam a ngi nii toog mu war a waxtaane waat loolu dama leen di ñaan ci intérêt Thiès ñu seet li Thiès waa yëpp bokk ñu teg ko ci loxo ville li Thiès waa yëpp bokkul te mu nekk yëfu gox ñu jox ko commune yi noonu la war a demee ndax tey soo tey soo jëlee gare routière ñëpp bokk ko nga jox ko benn commune conseil boobu mën naa daje réunion ne léegi ñun léegi fii ay immeuble lañ koy def te am nañ ko am nañ droit bi te ñoom rek dafay nekk nag waa commune boobu mais bu ñu demee def ko ay immeuble Thiès dootu am gare routière te kenn laajul yeneen commune loolu foofu la ñuy waxee te ñu xam ne bu fekkee dañoo jël marché central te ñu ne ay moyens dafay génn ñu teg ko loxo ville mais moyens yooyu su ko ville jëlee mënul lu jël liggéeyal ci commune commune rek la ci mën a liggéey tey mënoon naa taxaw wax ne communes yi ñoo ëpp doole tey ji ci wàllu moyen ville mais bi ñuy waajal final yi mais zones yi mënoon naa ne sama yoon nekkul ci zone yi y a mais zone bu ci nekk dañ laa jox un million zone bu ci nekk. dañ laa jox ñaari équipement jeu de maillot complet maillot culotte bas ak ak ak ak ak ak blouson mais loolu mënoon nañ ne suñu yoon néew ci ci loxo communes yi la nekk tey jii am na ñu ma interpellé ci ay école école bi école bële école école lycée yi nangam nangam ñun yorewuñu benn école ville yorewul école primaire yorewul collège yorewul lycée ma wax leen ko nag ku ko xamul mu xam ko tey école yu ndaw yi communes yi ñoo leen yore collège ak lycée conseil départemental moo ko yore waaye du tee ñu dugal suñu loxo nag parce que ñun ñoo ko sas suñu bopp kenn sasuñu ko parce que rien de ce qui est thiessois ne nous est étranger waaw ku Thiès soxlaa dañuy taxaw duñ seet nag ndax ñoo ko yor wala yoruñu ko waaye nag dafay fekk mu leer que dañ ciy jàpp rek interpellé nañ ñu ci wàllu éclairage public. am na ay mbedd yu ñu lim waaw am na mbedd yu ñu lim lim ba nga wax ne fii leerul dañ ko war a leeral yorewuñu ko daaw man maa jóge jëm ci waa Sénélec xam ne Sénélec am na cent millions yu ñu waroon jox commune cees yi te ñaari dërëm nag lu ci dugg ci keesu ville maa ko lijjanti ngir ñu jox ko commune yi mais lu tax ma lijjanti ko pour ñu teel leen ko jox c'est pour que bu ñu jotee loolu ñu defar ci làmp yi kon làmp yooyu bu tàkkul du ñun de na leer parce que nag waxante dëgg moo jot man chaque fois damay defar man bu ñu ma joxee coupe ma war ko joxe bu fa maire commune taxawee ma jox la ko ne ko joxe bi bu lu mu mën ci doon waaye nag comme affaire bi dafa demee nii mu demee nit ñi di seetaan ñuy teg ci ñun loo xam ne nekkul il faut ma leeral leen ko ba ngeen xam ne demewul noonu ngeen xam ko mu leer nañ que ñun li ñu yore mooy quartier yu bees yi ak gox yi mësula am éclairage public extension du réseau d'éclairage public loolu mooy compétence ville ëllëg nag su fekkee ne nekk nañu ci mutualisation dinañ mën a jàppalante daaw am na yenn yoo xam ne ci wàllu ay remblai ak yooyu dañ ko def ñu reproché ñu ko parce que dañ nañu da ngeen di politique ren bañ ko defulee bërëb yooyu kenn defu moo moo tax ñu wëlbatikuwaat def ko ndax askan wi ñoo tax ñu di ko def alors